safar gi nga xamante ni ñun waa daayira Ahlul Xudaa féete fii si njaareem si Pikine ñoo ngi koy taxawal at mu yàlla sàkk mën na ne bii nii mooy suñ septième édition maanaam suñ juróom-ñaareelu ñu di ko taxawal fii nii si Pikine waaye ku ne xam na li ko sabab dara saboo màggal Touba Serigne Touba dafa waxoon ni bisam bii di fukki fan ak juróom-ñett si weer safar saa su dikkatee da ngay mas a sant la saa kon mu mel ni jour màggal saa su fa murid di demee ba Touba lan fay def mooy dañu santale Serigne Touba boroomam waaye ñun ñu yëg xéewal gi nga xamante ne moom lañ Serigne Touba defal. waxtaayam si jéego yi ngeen def ba yegg sa fii ngir defal ñu interview ngir liggéey bi nga xamante ne ñoo ko fay def seen fan. te fay leen gën di fay yokk leen ba ngeen yëg ko ngir tontu sa laaj rek. safar gi nga xamante ni ñun waa daayira Ahlul Xuda féete fii si njaareem si Pikine ñoo ngi koy taxawal at mu yàlla sàkk man na ne bii nii mooy suñ septième édition